auzu billahi shami ali min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna alhamdulilahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaxfiruhu wa nauzu billahi min sururi anfusina wa min seyaati amalina man yahdihi llahu fala mudillahu wa man yudli fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu ginnaaw ban sante borom subhanahu wa taala du julli ci sang-sangi muy sayidina muhammad alayhi salatu wasalaam ñu ngi nuyu mbokk internet waaye tamit du nuyu képp ko xamante ne yaa ngi safoo di seetaan El Vision Média waaye tamit du nuyu équipe El Vision Média yaa yëpp ñu ngi leen di ziar lay wàccee seen wàccuwaay lay ñaanal jàmm boo leen gisee fi ñu taxaw tey ngeen xam ni programme mag moo fi war a xew waaye avant tout dañuy waxtaan ak ki nga xamante ni moo ñu fi taxaw ñëw muy Omar Samb ñuy doog a waxtaan li tax programme bi am avant tout dañuy bàyyi Omar nuyoo ñu doog a jublu ci programme incha allah Omar salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu soxna Salimata Moron ñu ngi nuyu ñëpp di ziara ñëpp nag euh, macha allah di nuyu ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu dalal tey. di El Vision Média di ñaan yàlla télévision bi yàlla na yàlla yëkkati ko ba mu àgg ca kaw a kaw di nuyu tamit ñi ñu àndal xaj Moustapha nga xam ni ñoom ñoo jiite programme bi donte que ñun la ñuy seen waaye ñoom ñoo jiite liggéey bi yëpp Moustapha Niang ak euh, Serigne Ibba ak euh, Mouhamadou Lamine ak ñi nga xam tamit ñëwuñu comme suñu président Hadji Ousmane Sarr mm-hmm. ñoom Amé Seck ñoom Papa Daouda ñoom euh, Ablaye Ndiaye ñoom Malick Euh, tey jii bu ngeen gisee comme ni ko Sala waxee. bu ñu teewee fii ci salle bi ci centre polyvalent bu euh, Médina fas Mbao ñu xam ni am na lu fi xew. lu fi xew nag lenn rek la mooy spécial ndéwénal spécial ndéwénal nag xale yi njàng sàmm di ko amal xale yi njàng sàmm di groupe boo xam ni groupe bu tagg yonent bi sallallahu alayhi la waaye di xale yoo xam ni xale yoo xam ni yonent bi moo leen ñor ak diine ak tariixa bi soxna Maroon. macha allah am na solo di ngeen ko déggee ni mu ko waxee ngeen xam ne kon programme bu rëy la incha allah muy am fii nga xam ni mooy euh, si centre polyvalent bi le 31 incha allah mu nekk spécial Ndewale après dina ci gën a xuus incha allah mais avant tout dañoo bëgg a waxtaan ci Omar Samb kan mooy Omar Samb dëgg-dëgg. waaw soxna Sala euh, boo laajee Omar Samb dañ lay wax ni la Omar Samb daanaka ab taalibe la rek. Mhm. taalibe la boo xam ni mu ngi ci këttu kër diine yëpp nag waaye fi ñu ko gën a xamee mooy. waa kër Seydi El Hadji Malick tariqa Tijaaniya yàlla dogal ñu ñu nekk koo xam ni dañuy yëngutu ci tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bëgg ko tamit nag fas yéene nekk koo xam ni ci loolu rek la ñuy dox Omar Samou daal ab taalibe la ci pour mag pour gàttal. macha allah gis ni Omar Sambu tàggatu yonti bi alayhi salatu wassalam way Omar Sambu tem am ci groupe bu mbok Omar Sambu am fu mu jange way lolou lañ ko bëgg laay Omar Sambu fan nga jange way ak lan moo tax nga ci tag yonti bi alayhi salatu wassalam waaw lolou dina sawar nak ci tond ci lolou nak ndax bu wax Omar Sambu ak euh, way ak lu ñu wax ci Omar Sambu ak euh, Omar Sambu tur bu mëna dégg rek dafa am ku ko def ci moom mm-hmm. euh, yalla dañu dafa dogal ñu juddu mm-hmm. fekk suñu wayjur nek ci diine di jangale suñu papa yaron daara di jangale mm-hmm. waaye ñu xàmmee nag fekk suñu mag euh, di xaaj njaga sàmb ñu koy ñaal yàlla di ko nuyuwaale euh, di ko ñaanal yàlla moom dañuy wax ni moom moo ñu nàmpatal ci way ñun ñëpp ñun ñii ñëpp taxaw fii képp ku fi yore micro di way rek da dañuy wax ni sax sam-sam jàmm gën sikaab mbaaw yëmbal ñëpp xale yëpp moo leen jàngal way mm-hmm. ñun nag ñu màgg fekk ko muy way ñu bëgg way yi ànd ci ak moom yàlla dogal ñu topp ci ginnaawam di ko aw ba léegi ñu ngi ci ginnaawam di ko aw fu mu fu ñu gis Ndiaga Samb rek dañ ñu gis waaye ñun nag ñun ñoo tuddee suñu bopp xale yi Ndiaga Samb kon group bi groupe Ndiaga Samb la. Mm-hmm. maa ngi doon ñëw foofu xale yi Ndiaga Samb ñoom ñooy waajal programme bi nga xamante ni mooy am fii ci centre polyvalent bi di am la 31 incha allah rabi mu nekk spécial ndaw ne waaye damay bàyyi ñëw ci wàllu programme incha allah. الحمد لله الذي قد أوجد بكل ما أعدمه بأحمد الحمد لله الذي قد أوجد الذي قد أوجد أنا سبيون بلقتك الحمد لله الذي قد أوجد بكل ما آدمه بأحمد الحمد لله الذي سنو مام سرين بابكرني بكل ما آدمه بأحمد ينيب لقي جاكو ربي فلا يسأل عما يفعل والناس يسألون عما فعله الحمد لله الذي الله الذي قد أوجد كل ما آدمه بأمر ينسني لخيتك يا فاتح الأبواب يا دليل لكل عبد جاءه تسهيل والله الحمد لله الذي لا الذي قد أوجدا ما آدمه بأحمد أجل خيجك أنت الذي خلقت في السماء والأرض يا عالم من الأسماء الحمد لله الذي لله الذي قد أوجد بكل ما آدمه بأحمد أجل خيجك فجد لنا أنا ذريعة لسيدي مميت كل أولياء وسند الحمد لله آه لله الذي قد أوجد لما آدمه أجل خوي جكو لا تقطعن عمن به قد قبض وكان لطريق ربي عرضا أيوة الحمد لله الذي قد سرين باب كرسنا بكل ما سن لخوي جكو تعلم ما جرى من الأنفاس لقد جكو تعلم جرى من الأنفاس سن بابكر سنة تعلم ما جرى من الأنفاس سن بابكر سنة يا تعلم ما جرى سن بابكر سنة يلا يا تعلم ما جرى majara majara ma majara majara ma majara majara ma majara ma laxay majara majara ma ku sopp Sëñ Babacar Si loxo ca kaw lamu ma sape yeneen ci bi seen loxo yi ca kaw lamu ma sape sëñ Babacar Si loxo ca kaw lamu ma jarami na la anfasi anfasi fil jinni wan nasi ma an nas nasi الحمد لله الذي قد أوجدا قد أوجدا كل ما آدمه بأحد بر يالنا nanga ñu jéggal alimta ma alimtu ma alimta wa ma alimtu xayra ma alamta lay kenn sëñ Babacar Si Babacar Si ne wa ma alimtu xayra ma alamta la ca loxo yi ca kaw wa rubbama tazjur fi ma taalamoo bi alimin faddalawo ما يعلم والله ما علمت ما علمت ما علمت aca loxo yi ca kaw faxfir ilaahi rabbi walidina maxfiratan ila xifaisina na ñëpp ni amin wa maalim seeni loxo yi ca kaw suma salaatuka allati tajallat suma salaatuka صلاتك التي تجلت تجلت آه ثم صلاتك التي تجلت تجلت بسر أسرارك قد تحلت علمت ما علمت ما علمت ما علمت وما علمت غير ما علمت macha allah macha allah am na solo mi ngi noonu noonu euh, nga xam ni ku suñu maam Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu waaye tamit di ziar képp koo xamante ne yaa ngi safoo di ndamoo di seetaan El Vision Médias waaye tamit di gërëm képp koo xamante ne yaa ngi ñuy bégg bu baax a baax avant tout damay ñëw Omar Samb am na beneen question ma la bëgg a posé waat dama gis euh, nouvelle génération bi ku jug tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam te leen ni ñu yëruñu bindu mag ñi Omar Samb ñooñu lan leen war a wax. waaw xanaa li ma leen di wax mooy li may wax sama bopp rek. Euh, di wax ni yonent bi moom euh, tagg ko baax na lool waaye nag balaa nga koy tagg fexeel ba xam ko xam gi mooy nga xam li ngay wax bu baax a baax euh, loolu laa leen di wax ñoom ñi nga xam ni daanaka ñoo tolloo génération ñii ñoo leen raw ñii ñoo ñu mag ñi ñu mag ak ñi ñu tolloog ñi ñu raw ñëpp la ñuy boole kàddu bi muy képp koo xam ne rek yaa ngi tagg Seydina Muhammad même bu fekkee jàngoo mm-hmm. waaye fexeel nga dem jàngi. Mhm. ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, tagg ko baax na lool nag. Mhm. waaye nañu xam niñ koy taggee ndax yonent bi doo ko tagg ci sa xaal danga koy mhm. tagg ci xaalam ni mel. waaye bul xool yow ni nga mel nga taggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey Omar Samb boo ko fekkee Omar Samb bi nekk ci mbedd mi wala Omar Samb bi nekk ci terrain bi Omar Samb bi dox ci kaw tali karo bi euh, bokkul ak Omar Samb bi nga xam ni warul bokk ak Omar Samb bi nga xam ni mooy téye micro di way. ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo demee ba yore micro di ko way rek war nga war nga am ay jàngat yoo am ci moom waaye tamit na nga xam bu baax a baax li ngay wax ci moom te xam-xam al ilmu afdalu min al jahli xam-xam moo gën a réer fuuf te yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xamul noo koy taggee su boobaa tagg bi du jaar yoon te bëri na nag euh, suñu moroom yi euh, ba ci suñu classe yi ñoo xam ni euh, dugg nañ ci waaye liñ leen di wax rek lenn rek mooy Euh, nañu fexee yër bindu mag ñi rawatina te bàyyi tamit euh, euh, comme ni ko ni ko ni ko ñenn ñi di defee bàyyi woy folklore yi folklore mënul ñàkk ci way mm-hmm. waaye bu lu nekk rek dafa am dafa am heure mm-hmm. dafa am place mm-hmm. nga xàmmee lan mooy wayu daayira nga xàmmee lan mooy wayu ngénte nga xàmmee lan mooy wayu mariage waaye nga xàmmee lan mooy wayu gàmmu yër téere yi lu baax a baax la ci ndaw ñi. dooguma la foofu sax mais am na ñoo xam ne dañuy dégluwaat euh, yeneen seen exemple nga gis kuy déglu Pape Malick Mbaye su paree demaat ci daayira ba même way bi lay wayaat da lay lenn kii li boo ko ni woon euh, fi xas xis bi ngay jàng ban kii la du la ko wax. waaw loolu mën na nekk soppe mooy tax. Mhm. tey jii kiy déglu Omar Samb wayu Omar Samb neex ko mu déglu ko. Euh, kooku bu Omar Samb juumee rek day juum. kon warul donte ki déglu Omar bu baax na déglu Pape Malick Mbaye baax na déglu bu baax na waaye yow mi leen déglu maanaam bul bul jàngee ci li ñuy wax parce que bu fekkee Omar Samb mi ngi déglu xamul dara. donte ki bëgg nga ko waaye am na baat boo xam ne donte ki sax xam na ko waaye yàq na ko donte ki tayu ko. yàq na ko yow na nga ko dégloo nga jàngee ko noonu ca déglu ba su boobaa yow moom bu juumee rek nga juum waaye li nga war a def mooy. sopp ko di ko déglu waaye nag jàngi bind mag ñi ndax bindu mag ñi nekkul dañ koy déglu ci kaset yi mhm. da ngay dem jënd téere yi lu mel ni xilaatu dahab wala nga dem jëndi diwaanu sëñ Babacar wala yeneen ak yeneen yoo xam ne moo bindu mag ñi la mhm. nga dem jël ko jàng way yi ba mokkal ko xam lan mooy axkaam yi waaye xàmmee tamit euh, euh, euh, ilmu tajwid yi mhm. xàmmee tamit ilmu naxu yi xàmmee sarfu yeeg yeneen ak yeneen yi nga xàmmee ko iraab yi yooyu nga xam ko soo ko xamee nag su boobaa boo bu nit ki yàqee si way sax yow doo doo ko xool mm-hmm. yow ku ku yàq ku way ba yàq yow doo doo ko déglu ma yow sa xam-xam ngay ngay jëfee mm. euh, Omar sànq gis naa nga doon jàng benn bind kan ma bind bind bind boobu waaw loolu tawasul la boo xam ni Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu mm-hmm. moko bind matla matlaalu qasida bi mi ngi nek alhamdullilah lazi khad awjada bi kulli ma aadamahu bi ahmada est-ce que mo nga ñoo firi lool waaw seigne Babacar fi seigne Babacar si dafa wax fofu muni euh sante yàlla mi nga xam ndax euh jaaw jaaduna ci jambi muy sante yàlla ñu ngi sëñ Babacar ci lutax ngay sante yàlla muni alhamdullilah alhamdulilahi ma ngi sante yàlla mi nga xamni khat awjada mo jada moo amal lan la amal bi kulli ma aadamahu lépp loo xam ne amul woon rek yàlla mi ngi ko amal ñu ni ko loo tax yàlla amal ko mu nii bi ahmada ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ni kon yàlla moomu nag sant ko war na ndax rabbi falaa yusalu amma yafalu wa naasu yusaluna amma faalu mu ni yàlla lu tax ñu koy sant parce que moom li muy def kenn du ko laaj pour ko pourquoi nga koy def te ku def ci nit ñi ñu laaj la lu tax nga def ko bu ëllëg yow ma xeexamee yàlla dina laaj lu tax nga def nangam ak nangam mhm. moo tax suñu Babacar ni kon sant yàlla war na moom mi indil Muhammad mi nga xam ne moo ñu indil nuural huda waaye sant yàlla mi nga xam ne moo ñu indil euh, Muhammad mi nga xam ne moo ñu indil diinal islaam mhm. waaye nag moom yàlla moomu nag mhm. mooy ki nga xam ni yaa xaasimal arzaqi yow miy séddale wërsëg yi yaa mu sabbi bu yow miy amal lépp lu am li kulli abdin ñeel bépp jaam boo xam ne jaa ahu dikkal na ko attas hiilu gëlëmte nee na sëñ Babacar nee na kooku bu yoon xëyamee yàlla moom moo koy tegaat ci yoon nee na moo tax mu ni may sant yàlla xasida bi mu nekk xasida boo xam ne xasida ñaan la xasida boo xam ne xasida bu am solo la mag ñi dañ koy daan boole seeni ñaan soxna Sala macha allah am na solo loolu leer na kon li boo lay xoolee lii rek yéen jànkat ndaw yi kon war ngeen a dem gëstuwaat bindu mag ñi waaye te war ngeen a xoolaat bind bu baax a baax bis bu ñu leen euh, dalalee ci benn émission wala ngeen nekk ci daara bu ñu leen laajee li ngeen di jàngee mën koo firi macha allah am na solo Omar Samb léegi damay ñëw ci wàllu programme Omar Samb programme bi ngeen di préparé noonu nu mu demee 31 décembre 31 août. 31 hmm, août waaw spécial Ndewenel. Hmm. ñan ñoo ko organisé xale Njaga Samb. Hmm. avant tout lan moo waral xale Njaga Samb. xale Njaga Samb euh, ñii ànd ak Njaga Samb xale yi xam ne dañoo sopp Ndiaga Sambou Ndiaga Sambou jàngal leen way def ci ñoom yar ak teggin waaye def ci ñoom xam-xam desen ñoo tuddee seen bopp xale yi Ndiaga Sambou waaw ñu mononyo nañoo tudd nag neneen mënoon nañoo tudd sopp na bi dañ xam ñun ki ñu li ñuy def ba ñu mën ko ba xam ne fu ñu taxaw way ñu jox ñu cër jox ñu gëdd naw ñu kooku mooy Ndiaga Sambou ñu tuddee suñu lo xale yi Ndiaga Sambou macha allah yal na ko yàlla may wér su ma jublu ci Tafa laaj ko ci organisation bi Tafa ziar la waaw asalaamaaleykum maa ngi lay delloo ziar soxna Sala. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaye tamit est-ce que mën nañu wax dara ci programme bi xam moom la ñuy fii ci centre polyvalent bi. waaw programme bi xam ne moom la ñuy préparé muy am le 31 août incha allah fii ñu taxaw nii ci centre polyvalent bi. Mm-hmm. ci Fass mm-hmm. ñu tuddee ko spécial ndëwënal boo xam ni comme ni ko Omar waxee xale yi Ndiaga Samb ak seeni staff ñoom ñoo ko organiser. pour bégal jaamu yàlla yi ndax. ñun dañuy gis ni ñeneen ñi nga xam ni yënguwuñ ci wàllu diine fu ñu nekk rek dañuy am seen spécial boo xam ni spécial tabaski wala korité wala yi demee ni ki noonu ñun nag nga xam ni ci wàllu diine la ñuy yëngu ñu ne war nañoo def spécial ndëwënal boo xam ni dañ ci woo nit ñi ba ñu ñëw ñu bëggal leen ci yonent bi rawatina ñi nga xam ne ñoo sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu organiser spécial ndëwënal boobee. macha allah am na solo léegi la moo tax ngeen wàcc fi conférence wàcc fi gàmm ñëw ba ci centre polyvalent bi def ko comme genre concert def ko entre la ma waral loolu da ngeen wane cofeel ci Seydina Muhammad wala lan moo tax am na ay bayaal yoo xam ne yu réy la mënoon nañ ko faa def mhm. mais dañuy gis ni yeneen yu mu mënti doon yoo xam ne dañ koy yóbbu ay grand théâtre dafay am mhm. entrée te bii daanaka spécial bi la nga xam ne moom la ñuy euh, laaj. Mm-hmm. muy 2000 francs yi nga xam ne mooy ticket bi la fiy dugal. Mm-hmm. pour parce que kenn ku ci nekk ak sa tolluwaay ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na koo xam ne yonent bi jaral na ko boo ko laajal milliard. Mm-hmm. mu génnee ñëw jox la. am na koo xam ni 2000 francs yi nga xam ne moom la ñuy laaj ne moom mooy euh, entrée bi am na koo xam ne jaralu ko lool du ñëw. ñun nag soppe yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñu fii pour bu ñu leen woowee indi ko fii. pour bégal leen xam ni ñun kat lii mooy suñu cër. Mhm. kon nag li nga xam ne moom mooy suñu cër chaque jour dañ cee war a nekk xaase suñu tàng tubéy parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam doom kenn munu ko maanaam yonent bi mhm. euh, moo supérieur lépp. Mhm. waaw kon nag kenn mënu koo tuutal kenn mënu koo suufeel ñun nag dañuy dox ci lool pour mu gën a jëm kaw moo tax ñu indi ko ñu indi ko fii. macha allah am na solo su ko defee mu jublu ci sang bi daal ibba la wala. ah ziar naa Ibrahima. Euh, lan moo tax euh, programme bi tamit euh, est-ce que yéen a ngi xalaat un jour bien ngeen ñëw yóbbu ko ay Sorano wala Grand Théâtre waaw loolu la ñuy ñaan yàlla ndax bañ koy door a sabab. Mhm. objectif bi moo nekkoon ñun ñëpp ñu innové def loo xam ne nii nii nit ñi daaw ñu ko def. Mhm. te def nañ ko daaw mu réussir macha allah ren ñu koy defaat ñu ñaan yàlla mu réussir ba déwén ñu yóbbu ko ci lieu yu mag yi nga xam ne ñu ngi fay def leneen mhm. ñun ñu. yóbbu fa nit ci barke yonent bi loolu daal la ñuy ñaan yàlla te gëm nañ ne bis dina ñëw mu am incha allah. incha euh, maa ngi ziar sang bi tur bi naka la. Mouhamed ziar naa la. Euh, ñu ngi lay la moo tax euh, programme yi xamante ni moom ngeen def sant polyvalent bi. ba ngeen ngeen ci doo commencé ba organisation ngeen ci def ba tax ngeen am ci mbooloo mi. waaw waaw soxna ci ñu ngi ziar bu baax a baax di jiital si nuyoo bi suñu kilifa Seydina Omar muy kilifa teewaay fii nii. waaw boo gisee loolu noonu ñun ñëpp ay nitu daayra lañu. Mm-hmm. te samedi ak dimanche. altine ba semaine bi yëpp ñu ci daayra te bëri nañu ay nit macha allah te tuuti nit ñëpp ay nitu daayra lañu. dans ce cas léegi bu ñu amee programme boobu ñun soppee yonent bi sallallahu alayhi euh, suñu mbokk yi nga xam te bokk nañ ak ñoom cofeel bokk nañ ak ñoom pas-pas du ñu def lu ñu dem si ñoom yëgaleen suñu programme bi te macha allah ñoom ñëpp ay euh, ñu ñu gëm yonent bi lañu am nañ cofeel si yonent bi ba tax na bu ñu jógee di def suñu spécial bi ñoom ñëpp dinañ jug maa koo ko jàppale nañu si waaw ma jàppale daal ñoom ñëpp kañ ngeen ko commencé def. waaw daaw lañ ko def euh, ren ji mooy deuxième édition waaw daaw lañ ko def euh, sant yàlla daaw bi ñu ko defoon euh, amoon na réussite sant yàlla bu baax gars yi yëpp jàpp nañ si te am na ñu yaakaar que ren aussi dina réussite ren bi incha dina gën a yëkkati ko bu daaw bi daal. dina yëkkati ko incha am na solo Omar Sam kan ngay woo ci bis bi. waaw maa ngi woo ñëpp nag képp koo xam ne rek. yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jullit yi ñëpp maa ngi leen woo tiijaan xaadir laayeen bàyyiwuñ kenn ñu ngi woo ñëpp waaye di jiital ci woote bi nag suñu ki nga xam ne moom la yàlla teg ci gox bi muy monsieur le maire di Ndoof wax dëgg yàlla moom tamit di koy jàppale ndaw ñi te ñun ay ndaw lañ yoo xam dañuy doog a door bëgg nañ ci ñu événement bi àgg ci événement yi mag yëpp fi muy àgg mu àgg fa diwoo woo ñëpp nag daayiratul daayira sam-sam yëpp ñu ngi leen di woo bu xaywal minati bu daayira muxtafiina bi asaaril abaay wal ajdaat daayira ahbaabu tijaan salaax wal islaax daayira mutahabina bu yaawa saar ñëpp ñu ngi leen di woo Fass Mbaaw muxtafiina bu faas Mbaaw ñu ngi leen di woo waa mutahabina sam-sam 3 ñëpp jàmm gën sikaab mbaaw bàyyiwuñ kenn xam ni ren Euh, spécial bii dafa nekk spécial boo xam ni maam dafa ñu ñor lool lool lool bëgg nañ képp koo xam ni rek yaa ngi ci gox bi jàmm Diamaguène Sicap Mbao nga teewe ko euh, loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ni moom la ñuy euh, woote di wax tamit nag lii ñuy wax ni dañ koy wax ci turu staff bi. Mm-hmm. ndax xale Ndiaga Samb doxuñu rek ñoom kese dafa am staff boo xam ni liggéey bi yëpp ñoom la ñoom ñoo waroon taxaw fii waaye dafa am yeneen yuñ doxi ji moo tax ci turu suñu président Ousmane Sarr. ak euh, Ahmed Seck ak Malick Niang ak euh, euh, Ablaye Ndiaye ak Daouda Ka ñoom ñëpp waroon nañu ñëw ak moor Niang ak ñoom Oustaz Modou ñoom lamin Niang ñoom ñëpp ci staff bi lañ bokk waaye ñii dañoo nekk fii ñii nekk fële tey jii dafa xaw xat moo tax waaye ñëpp waroon teew eh, fii ku ne ku nekk sànni waaye moo tax ñu ni nañu délégué Omar Sambou ak Moussa ak Mamadou Lamine ak Iba ñu ñëw fii euh, daal di euh, jotali kàddu yi nga xam ne mu lañ bëggoon a jotali soxna Sala. macha allah am na solo mais am na beneen question boo xam ne fàtte naa ko tawut naa ko laaj Iba. Mhm. Iba initiative bu rafet bi ka ko njëkk seen groupe bi. waa lépp bi Omar moo ko xalaat ñëw jox wax ko. Mhm. ñun ñëpp ñu kontaan ci ndax ba ñu koy wax mhm. ñun dañu jàppoon ni ah Omar kat dafay caaxaan wante dem nañ ba gis ne kii kat li mu bëgg mooy ñu am yeneen façon ndaw ndax ñu ngi ci lieu boo xam ne yéen a ma gën a xam daal nit ñi fii nii mooy loolu. mu ne ne pourquoi pas mënuñu def lii indi soirée yóbbu ko ci benn lieu def ko entrée. soirée religieuse xam nit ñi ndax yonent bi jaral na leen. initiative bi daal mu ngi jógee ci Omar mu ñëw teg ko ci table ñu dem ñu waxtaanee ko kontaan ci ñun ñëpp daal. macha allah am na solo Omar. Mhm. préparation yi da ngeen ci am benn jafe-jafe wala dafa lépp dafa yomb daal. waaw macha allah boobu bañ commencé ba léegi daaw ba nag yàlla dogal na. Mhm. Eh, lépp yàlla mi ngi koy sottil ndax taalibe moom mhm. xam nga mbiru taalibe du jafe mhm. eh, lépp yàlla mi ngi koy sottil eh, ci suñuy bëgg-bëgg ndax comme li yun saa salam wax maam bi xadril aqdaar yi tunzalul ah, ah, arjaq maam li nga xam ne la yàlla bind ci yow noonu la yàlla wàccee di yàlla di wàccee say wërsëg maanaam li ngay bëgg say bëgg-bëgg rek mhm. ni muy toll la yàlla di wàccee wërsëg yi moo tax ñun booba léegi sonnuñ ci ne am na ñuy jàppale nag am na ñoo xam ñu ngi ñuy jàppale bu baax a baax a baax a baax ndax Euh, daaw bi ñu koy def metti woon na lool nag bi ñu koy doog commencé waaye macha allah lépp jaar na yoon lépp jaar na yoon am na ñoo xam ñu ngi taxaw pour dimbali xale Ndiaga sàmbu bie yi bu génnee am na ñoo xam ne dañuy ñëw jël benn benn bloc ni jënd naa bloc bi séddale ko seen i nit loolu yëpp ci jàppale la ñu ngi woo ñëpp daal bie yi incha allah xam naa ni fii ak semaine bii wala suba incha allah bie yi dana génn képp koo xam tamit soxla nga ci bie yi nga wootee ci numéro bii ma lay jox. Mhm. Euh, muy 77 377 54 87 boo ci wootee euh, lépp loo bëgg xam ci information yi rek di nga ko xam incha allahu rabi. Tafa programme ba heure lay commencé. waaw Sala programme bi mu ngi commencé vingt et une heures incha allah. am est am na heure de jeex. waaw xam nga yonent moom. kenn mënul jeex kenn du doyal ci moom. Mhm. waaye ndax daaw dañoo dem dañ koo teel a arrêté nit ñi ne dafa gàtt. moo tax incha allah fii une heure du matin daal incha allah bëgg nañ mu jeex bu soobee yàlla. entre ñaata. deux mille francs la. incha allah. macha boo la gisee loolu nga xam ne yonent bi moom la ñii di wooteel di xale njëkk a bi rek moo leen ñor waaye tamit a muy mu nekk programme nga xamante mu ngi am fii si centre polyvalent bi la képp yaa ngi safoo allah ngeen ànd see xale njaga sàmm ñu bégal leen taggal la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba seen xol feex ngeen ànd ndànk dem ñit bu sooba yàlla nii lay demee saas na émission taaru diine ji tey ma invité woon xale njaga sàmm mu nekk sama première émission programme yi xam mooy am fii centre polyvalent bi El Vision da jox incha allah ci kàttanu yàlla wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu El Vision abonnez